donc and ak euh, le sous-préfet euh, de Medina Sabakh monsieur Thiaw euh, di wax ni sunu teewaay dafa nek mbégte ndax li tax mu nek mbégte moy commissaire Mbodj dafa ñëw ci département bi fekkoon commune de Nioro gendarmerie rek diko ko gérer di assurer la sécuris la la sécurisation des biens et des personnes ndax ñëpp xam nañ ne gendarmerie la Nioro xamoon waaye ba commissariat bi bañ ko créer mu nekk premier commissaire nekk na koo xamante collaboration dafa mucc ayib ak autorité administrative yi ak service ak les services du département les élus locaux waaye aussi les populations donc loolu moo tax tey ma bëggoon euh, monsieur le commissaire di lay ñaanal euh, nga am retraite bu paisible donc sa retraite bi nekk ubbite ci yow ba nga xam ne ay xéwal yu gën a kawe sa njort incha allah di ko ci am préfet nag nee na sant na la gërëm na la nee na sant na la gërëm na la rafetlu na sa liggéey ci département bi rafetlu na sa collaboration ak toutes les autorités administratives rafetlu na sa collaboration avec toute la population de Nioro donc mu ngi lay ñaanal di ñaanal sa njaboot di ñaanal aussi le personnel du commissariat ndax nee na euh, au niveau du commissariat li ngay sentir mooy benn famille moo fi am te loolu aussi day galvaniser personnel parce que ñëpp dañoo nekk benn waaye aussi dañ koy sentir ci sax ni ñuy gérer population ñoro du Rip

même les sous-préfets qui ku nekk am nga euh, FDS intervenir intervenir sa circonscription mais il a su bien collaborer avec nous sous-préfets et de la meilleure des manières donc ñun ñëpp dañ ko dañ ko gërëm li may wax ni nag dama ko wax ci autorité administrative yi yeewoo département de Nioro bi donc euh, vraiment kontaan nañ bu baax ci mom diko ñaanal di ñaan aussi expérience bi nga xam da ko capitaliser ci euh, police da ko capitaliser en tout cas ci administration mu mën a administration inshallah ultérieurement ci yenen anam donc euh, bu ñu paré ci loolu aussi comme tey dañuy puisque dañuy dalal commissaire bu bes xana rek diko ñaanal xamaguñ ko waye dañ koy ñaanal yàlla nako ko jik mu jik ñoro di wax ni tey commissaire Mbodj li mu fi def kontaan nañ ci lool euh, sunu xel dal na ci waaye dañuy ñaan yàlla moom mi nga xam ne moo ñëw mu def lu ëpp li commissaire Mbodj def parce que loolu la ñuy ñaan ci administration ku ñëw rek gën a euh, gën a góorgóorlu sa morom donc ci kaw loolu euh, commissaire entrant ñu ngi lay tàllal suñu loxo ñooro ñëpp a ngi lay tàllal seen loxo ndax soxla nañu vraiment kaaraange soxla nañu kaaraange kon ñu ngi lay ñaanal niñ fi ñëwé tay ci bisimilahi rahmaani rahim nga tok ba agali fi sa mission ci alhamdulilahi rabil alamin euh mu mu mu fekkee aussi tamit ngay dem ci anam yu gëna kawé tay fi nga ñëw ni donc ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal aussi di di remercier le personnel du commissariat voilà donc parce que ben lam rek du yëngu donc kenn rek mënul dara